man sama mémoire sama mémoire pour plaidoirie man maa koy bindal sama bopp <laughs> déposé ko ndax avocat boo dem boo amul trois cent dollars du laal sa ma am ci juróom benn nag ay procès <laughs> mais c'était à juste aussi. te da nga sonaloon gars yi. te non. da nga euh, sonaloon gars yi may mun a dama nekk ak Idrissa xam nga lu Idrissa def Idrissa joteeg Ablaye Wade Abdoulatif Coulibaly bind livre livre baa ngi génn le 3 juillet 2003 ñu ne Idrissa moo commandité livre bi Idrissa dem vacances ñu nekk di ko préparer coup pour tëj ko ma dem seeti maître Wade loolu rek laa def ma dem seeti maître Wade le 6 les 6 et 8 août bi njëkk maa ko seeti ñaari bi moom mu convoqué ma ne ko président mu ne maa ma ne ko le 23 octobre 1999 nga jóge France ñëw après un an et demi d'exil ma ne ko li nga nekk bitim réew yëpp maak Idrissa ñoo doon nekk moo doon du yu di fay personnel moo doon débrouillé wu bu ordinateur yàqoo mu defar ko moo doon débrouillé wu pour fay courant moo doon débrouillé wu pour def lépp ma ne ko nga ñib si ma dégg la yow nga wax Idrissa ne ko Idrissa dama laa bàyyee parti ñëw fekk fi parti ak genn wàll ma ne ko gis naa sax mu taxaw buy bugg a xeex ak ay opposants à l'époque euh, ku décédé du ma tudd turam Idrissa ne mooy nekk candidat opposition kooku ne ko lu tax Idrissa nekk comme ak candidat opposition kooku ci ñi gën a défendre Ablaye Wade euh, Ablaye wat après nekk ci gouverneur ne ànd ak Ablaye nekk allié Ablaye la bokkoon finalement euh, donc <clears throat> jaar-jaar boobu laa am ba yeg si fii. non mais yeggalil. ci bi nga ne li nga def mooy dem seet ab Wade wax ak moom ci waxu Idrissa Seck yeggalil foofu. mu ne ma yenn ko sànq ma ne ko ah yenn ko sànq la mu wax ma xam ci laa xamee ne Idrissa na bi ma génnee ma woo ko ma woo Idrissa ma ne ko ah Idrissa mu ne ma ne ko je ne connais pas ta maman il paraît que c'était une femme bien. mais yal na ma ne ko mais nekkatu fi mais yal na la yal na ko yal na la xolam couvrir mu ne ma Souleymane qu'est-ce qu'il y ma ne ko dama dem seeti maître Wade lii la ma wax est-ce que mun ngaa ñëw mu ne ma du ñëw loolu mënu koo déplacer lu nit ñi di waxtu du dëgg du dëgg mënu koo déplacer saa ngi ñibbi si le 21 août 2003. mooy ces fameuses vacances là. très contesté à à à l'époque man maa mujj ne ko Idrissa am na ñeent ñu dee Matam am na ku dee Nioro mënatoo toog ci biti mu ne man maa ngi ñëw lu ma lay wax ni c'était il y vingt ans bi mu ñëwee ki doxal le 9 septembre ñu dem mu inauguré seen bus yooyu xew fi après président ab lay wat da ko daxoon ci gouvernement bi jëlaat ko ñu yaakaar ne jàmm am na mais bi ma demee wax président dama ne ko président mu ne dama ne ko président mu ne ma ma ne ko yaa ngi waaja a créer ñetti journaux pour attaquer sa saaga ko mu weddi ko mu weddi ko ma citeel ko ñetti journaux yi mu weddi ko moo tax mu woo ma teesante ñaari ñaari fan après mu woo ma teesante man ak ñoom Souleymane Ndéné ñu ngi may dégg ak ñoom Pape Samba ñi nga may dégg ak ñoom Farba ñi nga may. Pape Samba Mbow. waaw ñi ngi may dégg. daf la ci woo tiiñal la. waay waay nee ma woy man maa wax lii maa wax laa bon enfin Ablaye wat euh, je préfère retenir ci Ablaye wat lu baax lu ma xam pas le problème parce que dencalu bi ñu gañee dama ko woo pour balu ko ax mu balu ma ax li mu mën ma def ko pour ñu bàyyi doomam libéré ko lu ne laa ci daj pour ñu bàyyi doomam libéré ko donc président côté boobu wax nga ko dañ koy tooñ dañ koy tooñ Macky Macky n'est pas Macky au fait Macky euh, bañ bañ problème bañ tension mais il n'avait aucun intérêt à protéger des gens qui n'avaient aucun intérêt pour lui mais am na ci ñoo xam ne euh, il n'avait aucun intérêt